أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يونغي أندا تكيين ci téere yàlla bi subhanahu wa taala di jël ci kattanu borom bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ci suura ala imran ñu jël tey ñeenti aaya aaya cent vingt-quatre cent vingt-cinq cent vingt-six 127 ñeenti aaya yoo xam ne sunu boroom subhanahu wa taala lim ñu ciy jàngal mooy ñetti mbir bi ci njëkk mooy aaya yi dañuy leeralal bayaan sababu xazimatil muslimina fi Uhud lan moo tax jullit yi ak yéeféer yi daje ca Badr ca Uhud yéeféer yi daal di gañe ay dañu koy leeralal nee na bu ñuy càmbar dëgg-dëgg defetu jullit yi keroog ca Uhud danañu gis tomb bu ci njëkk mooy bu jullit ñi sàmmontewul mooy adamu sabr ñàkk muñ wa ixlaalihim bi mabda'i taqwa dafa am ñaar yu leen yonent bi waxoon te ñaar yooyu yàlla moo ko waxoon te ñaari mbir yooyu mu ngi ci aaye yi mooy muñ ak ragal yàlla muñ leen ngeen nekk ci kaw montagne bi bu leen wàcc bi xeex bi dépare ñu seen yéeféer yi ñu daw ña nekkoon ci kaw montagne ba gis julli di nekkoon ci suuf di dajale loolu ñu naan koom gi nga xam ne yéeféer yi moom lañu indi woon bàyyi ko ñoom ñi nekkoon ci kaw ñu jàpp ne bu ko julli di jëlee ñoom duñ ci am ñu wàcc mu ne is asa arrumaat amra rasul ndax ñi yoroon flèche yi ñi doon fet te yonent bi alayhi salaatu wasalaam tegoon leen ci kaw montagne bi ne leen bu leen wàcc situation bi nu mu mel sax leen fi des leen fi fii laa leen teg yéen nee na ñooñu keroog ba ñu moyee ndigalu yonent bi ñu wàcc montagne bi wa nazalu min al jabali ñuy daw ci ginnaaw am-am ci ginnaaw am-am lu ñu am for fas for jaasi for lenn lu noon bi sànni daw lu mu yoroon ci loxoom ba ñu dawee ci ginnaaw àdduna bàyyi ndigal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog lan leen duma duma yu méttee méttee méttee méttee méttee kon loolu doy na njàng ay jullit yu seen yonent teg ci barab waxa wax ak ak ñoom waaye ñoom jullit yooyu ñu wàcc charte bi lan lañ ci jële mooy ay duma mooy ñun ñi tey tamit ñuy duma guddeeg bëccëg ñun lan lan def ba nuy duma tey jii jullit yi ñuy duma ci àdduna bi lan lan def wàcc yoon rek danoo wàcc yoon wi rek waaw ba nu wàccee yoon ñàkk a tegu ci yoonu diine yar ba daloon gaaya bu njëkk ba daal di dalaat sunu kaw mu ne haza ala tafsir anna al wa'd bi salasati alaaf أو بخمسة كان بأهد فكان الوعد مسروطا بالصبر والتقوى فلما لم يصبروا ولم يتقوا لم يمددهم بالملائكة الذين ذكر لهم mu ne suñ borom keroog ba ñuy génn di xeex yi yàlla daf leen indi loon ñaari sart ne leen bu ngeen muñee ragal yàlla dinaa leen dolli ñetti junni malaayika wala ma def ko wala ma def ko juróomi juróomi junni malaayika su ngeen muñee ngeen ragal yàlla danaa ngeen nangu ànd ak yenent bi danaa leen wàcceel ñetti junni malaaka wala ma wàcceel leen juróomi junni malaaka mu ne comme gars yi muñuñu nag ragaluñu yàlla charte boobu yàlla sartonte ak ñoom charte ba daal di yàqu loolu lu njëkk la lu ñuy jàng doomu ndey yi ci aaya yi mooy ñàkk a sa sartonte ak sartu yàlla ñàkk a déggal yonent bi ndigal day waral ab julit bis bu nekk rek lu mu dugg du sotti suy xeex ak ay noonam noon yi danañ ko duma ñaareel ci li ñuy jëlee ci aaya yi nekk sunu kanam muy ñeenti aaya mooy an nasr wa in kaanat lahu awaamiluhu ndimbal ndimbal nag léeg-léeg day laaj mu am ay élément li ngeen koy xeex ci olof mooy ndimbal day ànd ak ah waaw loolu olof yi naan ndimbal na ca fekk loxoy borom mooy na fekk booy laaj ndimbal na fekk nga waajal ndimbal loolu olof yi dañ naan dank bi daan mbër dank bi daan mbër mbër mi du toog ba bisu combat bi mu koy doog a añi parce que dégg ngeen olof yooyu ah dégg nga ko loolu mooy la waaw doo tàgg doo toog ba tey ji am combat nee naa añ ba suur dem daan non déedéet añ bi tax nga daan du tey nga koy añ tey da ngay añ rek pour pour mottali mais añ bi nga añ tey du la jëriñ dara añ yu njëkk ya ah ñoo ñooy tax nga daan jullitit bu mu ne ànd naa ak yàlla waaw ku ànd ak yàlla nga war a gañe de ànd naa ak yonent bi ku ànd ak yonent da nga war a gañe de am naa mbooloo waaw mbooloo da nga war a gañe de am naa nangam am naa nangam da nga war a gañe de waaye loolu lépp dafa am lu ko jiitu mooy an nasru ndimbal loolu wa in kaanat lahu awaamiluhu bu fekkee dafa am ay sabab am ay yoon ay règle yi ñu teg min kasaratil adadi ci bëri nombre nit léeg-léeg léeg-léeg même ñun suñu bopp li dal na léegi am nañu mbooloo mbooloo taxut a nekk ci dëgg mbooloo taxut a gañe wal quwa ak force am nañ mbooloo mbooloo mi am na doole fa innahu bi yadillahi taala dañu xam ne ndimbal ci loxo yàlla la nekk tabaraka wa taala faqat yansuru ad daif yàlla léeg-léeg mu dimbali ku néew doole lool yàlla dimbali ko wa yaxzulul qawi mu gàcceel ponkal loolu leer na amoon na ay mbër ci Sénégal ba ñu bàkkoo lañ gën a am victoire wala yaakaaroon seen doole rek ba kenn ki ne buñ ma daanee àdduna tukki ñu daaneel ko keneen ki ne bu ma mbër yu ndaw yi mooy tuulee mu dem ñu daan ko keneen ki ne xaw ma daanu mu dem ñu daaneel ko wala amul loon foofu wala dégg leen loolu yéen am ne dégg naa ko seetaanu moo ko nag waaye dégg naa ko loolu yëpp lu ko waral mooy jaakaar sa doole am doole rek dafa ne tànn man ku ma moytuwul allahu akbar nga dem yàlla toroxal la loolu ab jullit day xam ne lu mu am am doole dafa am lu nekk ci suufu doole boobu luy animé doole ji mooy lan yàlla tabaraka wa taala mooy ndimbalam bul am doole ba waru bu arme yi bëri ba nga waru xam ngeen ne keroog ca Badr bu yàlla di dimbali jullit ñi amuñu woon nombre amuñu woon arme mais yàlla dimbali na leen ñu gagné parce que ndimbalam moo wàcc mu ne falisa ayuha al ahbab mbokk yi looloo tax wajaba tahqiqu wilayatillah looloo tax ñun ñëpp ñu war a farag yàlla ñu jox yàlla suñu bopp farag yàlla nag dafa am lu mu laaj léeg-léeg nit kiy julli léeg-léeg muy woor léeg-léeg muy saraxe léeg-léeg muy naafila léeg-léeg muy jàngal Qur'an waaye ba tey rek des na comme nun ni nu mel ñu ngi julli di jàngal Qur'an ñu ngi góorgóorlu bëgg lu baax waaye dafa am lu des dëgg-dëgg ni nu war a fareg yàlla ak ñu am kóolute ci yàlla dafa des te loolu foog mi ngi des rek ni nu mel nii la ñuy continuer mbir mi dafa am lu mu laaj de li mu laaj foog ñu def ko mooy allié bu mat sëkk far ak borom bi tabaraka wa taala far gu mat sëkk nga xam ne amul déngi déngi amul arrière far guñ dul natable sa digganteeg yàlla yàlla gënal la lépp comme ni Ibrahima meloon mu ne awalan qabla al i'dadi al adad avant ñuy préparer force balaa préparer force nañu far ak yàlla boo préparer mbooloo benn waaye ndeysaan sama benn papa day faral di waxtaan ak moom lu bari chaque instant mooy jëriñu ci waxam mu ne boo àndeek mbooloo ngeen nar a defi dara ñu nar la caa jiital loolu ngeen di defi bu dee lu nuy yenu la da ngay dem nga xool ko yow kenn nga yëkkati ko yen ko sa bopp fekk kenn fekkiw boo xamante ni àttan nga ko bi nga koy yëkkati bi nga ko yenoo àttan nga ko nga doog a woo mbooloo mi ne leen kaay leen nu waxtaan mbir mii nun koy yëkkatee su gaa yi ñëwee nangu nga ànd ak ñoom ngeen yëkkati ko ngeen dem boo wootee gaa yi bañ a ñëw yow nga yëkkati ko dem moo gën ñu ne la kañ dem yëkkati nangam rek yow lañ jiital rek nga ni waaw nga dem ba foofu ñoom ñëpp ñu daw te yow doo ko mën a yenu nga ñibbi ba ko waaw mbirum diine balaa mbooloo da ngay far ak yàlla ba pare da ngay dem dugg ci biir néeg bi defaru ba nga xam ne sa diggante ak yàlla kenn nekkatu fa ba pare yaag yàlla kese nga doog a génn ak ne mbooloo mi ñëw leen su mbooloo mi ñëwee alhamdulilah bu mbooloo mi ñëwul yow nga mën a dem ci yàlla fekk yow yeggoon nga waaye dem di wuti mbooloo fekk yow sa diggante ak yàlla leerul nga dem un mbooloo ba ñëw fekk yaag mbooloo ma yéen a yem mu leen sànnee benn lacrymogène ñëpp daw ñibbi te naan kii li fi mu ñu yóbbu tey su ma xamoon lii la du ma ci dugg loolu wóorul waaw ay waaj préparer sa bopp sa digganteeg sa borom ndeysaan ba nga xam ne am nga ñu wóor ñu dëgër yoo xamante ne liggéey lislaam bi mën nañ koo yenu ngeen doog a sumb liggéey bi parce que liggéey lislaam du lu ndaw te dafa métti mbokk yi ci yàlla ñun ñëpp nañu ànd yëg ne taxqiqul wilaya yakunu bil imaani wa sabr pour nu dëggal sunu far ak yàlla sunu ànd ak yàlla sunu bëgg yàlla sunu ngëm ko dafa war a nekk ci ngëm ak muñ jullit foog mu am imaan imaan bu dëgërul rek dara du dem imaan bi sabr wa sabr ngëm ak muñ mooy tax ab jullit yegg ci yàlla bu dee gëmoo yàlla bu dee doo muñ xam ngeen jaamu yàlla bi jaamu yàlla su ku muñul jaamu yàlla doo jaamu yàlla jaamu ibaada bi ñuy def est-ce que waxtu wi fi ñu toog nii amuñu lu ñu def est-ce que làmb amul tey amul am na làmb est-ce que amul programme yu génn ci télé bi yu neex est-ce que amuñu ay xarit yu ñu mën a dem yoo xam ne bu ñu demee léegi ñu defal ñu reer bu neex ñu toog foofu di yuuxu rek di animer rek est-ce que amul. waaye lu tax ñu dajaloo fi bëgg tiyaaba bëgg suñu borom kontaan ci ñun ñu bëgg xam téere yàlla bi lan moo ci nekk pour ñu góorgóorlu dund téere bi na ko gaaya dunde woon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu mooy ñu dajale fii kon muñ la ñu def dañoo bàyyi muñ léeg-léeg sax am ku ne la samedi dinaa ñëw sa kër nga ne ko déedéet bul ñëw xaaral ba dimanche parce que samedi damay dem tafsir wala nangam nangam lu tax nga wax nga nga nga aj bis boobu mu bëggoon ñëw parce que da ngaa jàpp ne war ngaa mën a muñ loolu waajooju war nga kaa mën a muñ nga dem ci borom bi tabaaraka noonu ñu muñee loolu moo tax borom xam-xam bi ñuy firi muñ dañu ne muñ ñett la muñ ñett la ñu ne lan mooy muñ ñu ne muñ mooy poñe bakkan bi def loo ko lu mu bëggul muñ xabsu nafs ala ma takra mooy nga poñe bakkan bi def loo ko lu mu bëggut a def ñu ne muñ boobu nag buñ koy fii dañu fekk ñett la muñ jaamu yàlla muñ mooy yàlla muñ jafe-jafe yeeg nattu yeeg feebar yi ñu ne ñett yi ñooy muñ yow nag bu fekkee muñoo jaamu yàlla wala fajar fajar damay laajte yow fajar neex na wala neexul ah neexul yow fajar neexul benn yoon surtout nag nga war a jàpp nga dagg say te nag seytaan dafa mel ni gis nga fajar fala affaire bi di gën a neexee fala nelaw yi di gën a ñëwee dafa mel ne mbàjj mi fa lay gën a nuggee fala lal bi di gën a nooyee yaram bi xaw a métti nga dégg allahu akbar allah nga naan waaye bilaal yi yàlla nañ dee rek sot ñoom bilaal yi xanaa duñ nelaw ñoom ñi ñi wëj bi courant dafa war a ko sa xol bi di wax loolu seytaane di la ruux ah lu ne nga wax ko waaw lu ne ngay xalaat ndeysaan ndeysaan dafa am benn portable boo xam dañ ci enregistré waxtu boo bëggee di jóg fajar nga enregistré wax jooju day wax qum qum jugal qum yaa axi jugal yow sama mbokk laa takun min al munaf min al munafiqin qala rasulullahi sa xam nga loolu dafa garaaw ta ta ta ta portable loolu la lay wax jugal jugal jugal yow sama mbokk jullit bul nekk naafiq yonent bi nee na ñi di julli fajar ay naafiq lañ aw la hawla wala quwwata illa billah loolu boo ko déggee fu nga jóg gis nga gis nga lu mel noonu ngay am nag nga xam ne boo ko déggee dalay sawarloo nga jóg xoolal nga muñ nelaw yi muñ mbàjj mi muñ muñ muñ lépp jóg mu leer na ne am na ñoo xam ne par exemple dimanche matin suba dimanche la nga xam ne xëyoo nga bëgg a jóg seytaane mu ne la foo jëm tey dimanche na nag yow doo noppalu yëfar yëpp yaa ngi dem jàkk tey dimanche kese la doo tëdd gis nga allahu akbar nga jóg moo tax dafa ifa métti loolu lañu naan nga xeex ak bakkan noonu nga def loolu ci yeneen jaamu yàlla yëpp noonu nga koy def parce que mbir mi dafa am ku topp ci yow bëgg laa jàpp soo dawul dëng benn bo benn borom xam-xam nee na tali boo gis ñu defar wala yoon woo gis ñu defar dañ faa def ay tableau yuy wone limite li nga war a daw wala ah Sénégal gi yëpp tali yi ngeen gis ñu defar lépp dañ faa def ay panneau ay tableau di wane fii lii nga war a daw fii lan ngay daw 60 fii looy daw 70 fii looy daw 80 fii looy daw 100 tali yàlla nag xam nga lu ñu la wax dawal amul amul limite fa firru ila allah tali boobu amul limite dañ leen ne dawal parce que boobu boo dawul doo egg tali yëpp nag dañoo limité daw bi ba mu des yoon tali yàlla tali yàlla dañoo ubbi bayal bi rek ne fa firru daw leen dafa mel ne dafa am lu leen dàq ñu ne yéen ñëpp daw leen ku dawul doo yegg yoonu yàlla bi kuy temp nii di dox ndànk doo dem de ndax dafa am kuy ñëw te bu ñëwee dalay jàpp su la jàppee doo dem ci yàlla loolu foog ñu dugal ko sunu bopp yi ñun ñi toog fii bu ñu dawul kenn ci ñun du rëcc bakkan dina la jàpp jigéen dina la jàpp bànneexu àdduna dina la jàpp àdduna ci boppam dina lay jàpp seytaane da lay jàpp ñi ñëpp ñu ngi sa ginnaaw di daw njaboot dana la jàpp ñëpp ñu ngi sa ginnaaw soo dawul nag doo yegg waaw ngay jóg rek am ku la ne nga toog seytaane daal lay jàpp kon yoonu yàlla moom daw rek amul doxantu kon ndeke ndimbal gi yàlla dige mooy ñu ngi koy amee ci ngëm ak muñ wa taa ak topp attaa attaama lillahi topp topp gu dëgg gu mat ci yàlla tabaraka wa taala wa rasulihi ak topp yonentam buñ defee lii ba pare summa tawakkulu ala allahi azza wa jalla ñu tekki wàkkiirlu ci yàlla waajal sa bopp ci ngëm muñ topp yonent bi wàkkiirlu ci yàlla tabaraka wa taala ñetteel ci li ñuy jëlee ci ñeenti aaya yi mooy sax na boroom xam-xam yi wéral nañ ko sax na ne malaaka yi xeex nañ bisu badr subutu qitaalul malaika ma ashaabi rasul sallallahu alayhi wasallam fi badr qitaalan haqiqiyan sax na ne malaaka yi yàlla wàcce na leen bisu badr ñu ànd ak sahaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain ñoom ñépp xeex ànd ak sahabatul kiram xeex nañ ñoom malaaka yi yàlla ñi yàlla wàcce woon keroog xeex nañ ànd ak saxaaba yi yi fekke woon badr ak kufaaru quraysh xeex goo xam ne xeexu dëgg la ndax yàlla moo wax ci quran ne malaaka yi xeex nañ yàlla sax moo leen doon jàngale ni ñuy xeexee yàlla mu ne yéen bu ngeen dajee ak yéeféer yi na ngeen dóor ci baat yi fadribu riqaab beneen aaya bi mu ne leen na ngeen dóor ci loxo yi xam nga ku yor jaasi ngay xeex ak moom mu dóor ko ci sa loxo luy xew ci loxo boobu loxo bi day dagg boo ko dóoree ci baat bi baat bi naaw borom loxo bu dagg baatam naaw kooku ndax dina xeex kon yàlla doon jàngal malaaka yi fan la ñuy dóor gis nga stratégie borom bi comme malaaka xamul xeex yàlla mu ne wàcc leen dëgëral leen jullit yi ngeen xeex bu ngeen dajeeg yéeféer yi dóor leen ci baat yeeg loxo yi loolu dafa wér kon am na ñoo xam ne dañuy weddi loolu mais lu sax la kéemtaan la bu yàlla defal yonante bi alayhi salaatu salaam keroog badr malaaka yi xeex mu ne li annahum nazalu ndax ñoom wàcc nañ ñoom malaaka yi fii suuratil bashar dañoo wàcc ci melokaanu mbindeef xam ngeen malaaka bu ko yàlla di wàccee ci kaw suuf bis bu nekk melokaanu mbindeef lay yor jibril deena wàcc léeg-léeg daana wàcc ci yonent bi ak melokaanu mbindeef melokaanu benn saxaaba saxaaba bi nu mu tudd dihiyatul kalbi melokaanam la jibril daan indi jàngeen ci xadis umar xadis bu gudd bi ci arbauna nawawi baynama nahnu julus ci diggante ñun danoo toogoon ni di wax ak yonent bi rek istala alayna benn waaye daal di fenk ci ñun daal di dugg mi ngi sol yére yu weex tal ah laa yura alayhi asaru safar kenn gisul ci moom jeexitalu tukki jeexitalu tukki mooy lan ku tukki bu nee tëll léegi ñëw lu lan moo ñuy wax ne waa ji dafa tukki yéreem dàllam yaramam kanamam da ngay gis yëpp français li pënd li poussière mu sonn tilim waaye waa jooju laa yura alayhi asaru safar kenn gisul ci moom taraasu tukkikat dafa mel ne ku dugg ci salle de bain bi sangu fomp diwu solu xeeñu toog ci salle bi bi mu ñëwee mu ne ko yaa muhammad axbirni anil iman wax ma ngëm yonent bi wax ko mu ne ko wax ma lislaam yonent bi wax ko wax ma ihsaan yonent bi wax ko mu ne ko kañ la yowmal xiyaam mu ne ko kii laaj moo ko gën a xam ki mu koy laaj kon moom yonent bi xam ne kii kan la yow mii laaj yaa ko gën a xam ki nga koy laaj mal mas'ulu anha bi a'lami mina saa'il yow mi koy laaj de yaa ko gën a xam ki nga koy laaj ki nga koy laaj gënu la koo xam ah saxaaba yi ñoom seetlu nañ waa ji day laaj bu yonent bi waxee mu ne ko sadaqta nee na moom mooy laaj di dëggal bi ñu toogee tuuti waa ji dem fa labas naa maliyan ñu toog tuuti diir yonent bi ne saxaaba yi xamoon ngeen ki xam ngeen ki doon laaj saxaaba yi ne allahu wa rasuluhu aalam yàlla ak yonent bi ñoo xam mu ne jibril moo ñëwoon di leen xamal seen diine ndeke jibril moo fi toogoon saxaaba yi am nañ lu rëy de yemuñ ci gis yonent bi waaye gis nañ sax jibril ah ñooñu yàlla may na leen allahu akbar yemuñ ci gis yonent bi de gis yonent bi rek xéewal la waaye gis jibril am na ci ñoo xam ne sax dem nañ ba jibril bëgg leen hmm? am na ci ñoo xam ne dem ba jibril xam leen am ci ñoo xam ne dem ba jibril di jël seen melokaan di ko mel kon ñooñu am nañ dara hmm? Hmm? am nañ dara de léegi nag waa Sénégal ñoom dañoo jàpp ne ñoom am nañ fii ñu gën ñooñu loolu réer la réer la de waaw ginnaaw yonent bi ak yonent yi saxaaba yee ci tegu xam ngeen léegi am ngeen benn rajo buy saaga saxaaba yi ubbi nañ fi benn rajo boo xam ne ay saxaaba yi lay saaga fii ci waaw mu ngi fii ci kaw ah ngeen bàyyi ci xel rek mu ngi noonu daal ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax a baax mbokk yi mu ne ndax ñoom keroog bi ñuy wàcc dañoo wàcc ci melokaanu doomu aadama yuqaatiluuna ala xuyul ñu war ci kaw ay fas di xeex wa alayhim saaratuhum wa alamatihim ñu ngi takk ay màndarga ay xàmmekaay waaw ñu ngi kaalawu seen bopp yi ñu def ci ay dunq am na ñu ne ay dunq bànjooli la loolu moo tax ñu ne Hamza bu daan xeex dunq bànjooli lay def ci dënd bi bi muy xeex Uhud loola takkoon bi muy xeex Badr tamit Badr loola takkoon bi muy xeex Uhud bañ koy rey biñ ko reyee dunq bànjooli bi mu ngi ci dënd bi mu ne wala yaqul na qaa'il wala yaqulanna qaa'il mu ne kenn ci ñun ñu toog fii xëy na dina poser question ci xelam wala xolam mu ne benn malaayika rek benn malaaka ëpp na yàlla ne dafa wàcce juróomi junni malaaka wala ñetti junni malaaka muy xeex waaw tontu bi lu yomb la malaaka yi wàcc ñu ak seen jëmm bu ñu wàccoon ak seen jëmm kay du baax waaye yàlla da leen a wàcce ci melokaanu doomu aadama te doomu aadama moom bu gisee doomu aadama moroomam daf koy ñeme moo tax malaaka yi bi ñuy wàcc melokaanu gis ngeen yonent yàlla Moussa xam ngeen yonent yàlla Moussa mus na sone xam ngeen sone sone mooy la dóor est-ce xam ngeen ne yonent yàlla Moussa mus na sone malakal mawt ah Moussa dafa tàngoon de jàng nañ fi xisasul ambiya doon àtte ñaari nit rek bu wax kenn ki mu daanu dee parce que ponkal la woon waxoon naa leen ko fii lan moo leen ne Moussa ponkal la mooy teen ba teen bi ak waajooju mu mu mu mu mu dóoroon nii rek ci dënn bi force mooy puusal ni ko gën waa ji dem teer dee ak fekk na ndaw si ñaari xale jigéen yi ci teen ba ñaari xale jigéen yi mun ñu yëkkati xeer bi pour naan seen kii naan ñu dem toog fële Moussa bu mu ñëwee ne leen lan la ñu ne ko ñun de dañoo ñëw pour naandal suñuy jur amuñu ku ñu ku ñu ko naanal ndax suñu papa màggat la Moussa ne zaj fi mu toog ñëw ne xeer bi cas sànni ko fële daal leen di naanal ba pare ñu naan ñu dem ñibbi bi ñu demee ne seen papa gis nañu ab ponkal seen papa ne leen ah waaw nan ngeen xamee loolu ñu ne ko gis nga seen papa xam na teen bi teen bi ñaata nit ñoo ko yëkkati ñu ne fukki nit ak juróom ñu ne ko papa moom kenn moo yëkkati xeer bi seen papa ne kooku ponkal la wax ngeen dëgg dem leen ngeen wooyu ko ñu dem wooyu ko mu waxtaan ak seen papa pour mu may ko kenn ci ñoom mu takk ko jabar waaye fay bi mooy ñun ñoo ngi def suñu xisa suñu anbiya sax nan bàyyi foofu point boobu ba ba àllarba insha allah parce que àllarba la ñu am xisasul anbiya te ci foofu lan toll yaakaar naa mbokk yi kon loolu ñetti mbir yi lañu ñu aaye yi nekk sunu kanam di borom bi tabaraka wa taala di leeral tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala bismillahi rrahmani rrahim إذ تقول للمؤمنين أن لن يكفيكم أن يمد يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يكبتهم فينقلبوا خائبين mu ne is fàttalikul yow muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam keroog ba nga xëyee indama balagahum wa hum xawla almaarg is fàttalikul yow muhammad keroog ba nga xëyee nga nekk ci préparé xeex nga yëg lan anna kirz ibnu jabir almuhaarib yazidu an yuridu an yamudda almushrikina bi rijaalihi am na benn waaye bu tudd kirz moom day ma ngay fexe jël ay nitam yi nga xam ne ay xeexkat lañ ay xeexkat lañ ay soldaaram mu yóbbu leen ca yéeféer ya dolli seen lim pour ñu xeex ak yonent bi yonent bi ba mu yëgee loolu ne waa jooju jël na mbooloom di ko renforcer yéeféer yi lan la wax jullit yi ci la leen wax lii nga xam ne borom bi tabaraka wa taala moo leen ko waxloo moo ko waxloo mu ne ko is fàttalikul taqulu ba ngay wax keroog lil muminina ñeel ñi gëm an lan yakfiyakum xanaa doyu leen yéen doyu leen an yum an yumiddakum mu dolli leen rabbukum seen boroom bi thalathati alaaf min al malaayika yàlla dolli leen ñetti junni lim ci ay malaaka yu wàcc renforcer leen di xeex ak yéen far ak yéen su fekkee waajee moom dem na di dolli lim yéeféer yi yéen kan moo leen di dolli lim yàlla te ñan lay wàcce malaaka li war na leen doy wala waru leen doy waaye war na leen doy bi thalathati alaaf minal malaayika keroog loolu la yàlla wàcc waaye charte bi mooy pour yàlla wàccee ñetti junni malaaka yi nga xam ne yonent bi moo yëg waa ji mu ngay dolli loolu mu ne ay yakfiyakum dina leen doy kañ in tasbiru wa tattaqu ndeke charte bi mooy yàlla tabaraka wa taala malaaka yi mu leen di wàcceel te muy ñetti junni munazzalina ñu leen di wàcce munzalina ñu leen di wàcce ñuy xeex ànd ak yéen nekk seen wet kañ mu ne balaa aha kay in tasbiru su ngeen muñee wa tattaqu ngeen moytu ragal yàlla su ngeen defee ñaari charte yi muñ ak ragal yàlla yàlla subhanahu wa taala dina leen wàcce ndimbalam ci leen yonent wàcc yóbbu leen ca pre ca xeex ca place Uhud yonent bi ku amoon stratégie xeex la gis ngeen Badr dafa ànd ak saxaaba yi ba ñu egsi ci teen yi mu ne fii baax na naan leen ngeen dan tànko ndox denc ñii sangu-sangu ñii jàppaat jàpp su ngeen paree ba ñu xam ne ñun noppalu nañ ngeen fattatee nii ndax booy xeexee ak nit fekk mu ngi mar naan moom léewaatoo bi du yàgg moo tax yéeféer yi bu ñu jógee màkk dox ba ñu eggee Badr li ñu njëkk a def li ñu seetlu mooy armée Quraysh bi ñépp a mar amuñu discipline benn waaye moo fa jotee génne benn mbuusu ndox mais keroog dañ ko tuuti tuuti ñu rey ko ndax ñépp ñëw di xëccoo ndox moom abu jahlin keroog bi mu xoolee jullit yi ni ñu dale mu xool mbooloo mi mbooloo mi ni ñu ëppale ni ñu nekkee désordre foofu la découragé yi loolu mooy défaite bu njëkk bi mu xoolee ñaari mbooloo yi dal gi ak ëppal gi rek nga yëg ne kanam gi changé mu yëg ne ñi mu àndal lu ñu tus loolu moo tax jullit dafa war a ànd ak dal ànd ak discipline ànd ak yar ci léppam loolu la ñu xamee ab jullit loolu la yonent bi yara woon saxaaba yi même ci xeex da ngay yëg ne ñoom dañoo organiser woon waaw mu ne waya atukum dina leen dikkee ci lu gaaw ñoom boo ngeen defee loolu ñoom danañ gaaw ñëw defa ne ñoom am nañu mbooloo limu nañ min fawrihim ci seen yàkkamti seen gaawtu waya atukum ñoom danañ dikk ci lu gaaw min fawrihim ndax seen yàkkamti dafa ne ñoom am nañ mbooloo léegi ñoom ñoo leen ëpp ñu gaaw ñëw borom bi ne haza lii nag yum didukum moo leen di dolli rabbukum seen borom beneen yoon beneen lim bi xamsati alaaf ci juróomi junni minal malaayika ci ay malaayika fee lan la waxoon ñetti junni fi mu ne leen juróomi junni malaaka yoo xam ne muallim muallamina dañ leen jàngal musawwimin bi alaamatin dañoo am ay màndarga yoo xam ne taarifunahum biha ci ngeen leen di xàmmee maanaa keroog malaaka yi xàmmekaay yi ñu am pour gaa yi xam ne ñii ay malaayika lañ seen kaala yeeg lañ def ci seen bopp yi ak yiñ takk fii boo nee jàkka kenn xam ne kii ci malaaka yi la bokk parce que yàlla utal na leen ay màndarga kenn ci saxaaba yi mooy nettali mu ne léeg-léeg nga jibbee ni yéeféer mu xàcc nga bëgg a dóor rek nga gis boppam dali fa la yow doo xam lu ko rey parce que malaaka yi ñoo dagg bopp bi kon xam ngeen ne jullit ñi yàlla defal na leen ndimbal ndimbal yi dul jeex xoolal ab jullit nekk ci kaw suuf di xeex yàlla wàcceel ko ay malaayika lu ko waraloon mooy ku dëgg lu ko waral mooy farak yàlla xoolal tey ñun ni nu bëree te mënuñu am ndimbal su de lu ko waral mooy dañu dafa des li des loolu nag foog ñu raxas ko foog ñu dindi ko ba mu set pour ñu am ndimbalal yàlla tabaraka wa taala yàlla mu ne wama jaala allahu yàlla deful loolu malaaka yooyu mu wàcc illa lu dul bushra lakum pour ngeen bég pour ngeen kontaan ngeen xam ne am ngeen boroom bu leen dul bàyyi albushra alxayr mu ne mooy yiw alxayru saar yiw woo xam ne da lay bégloo allazi yatahallalu lahu alwajhu bil bashri wa talaaqa kontante goo xam ne day feeñ ci sa kanam sa kanam fecceeku nga koy yëg ci sa yaram yàlla nee na mbégte googu laa bëggoon ci yéen moo tax keroog ma wàcceel leen la ma leen wàcceel ci lim ci ay malaayika pour ngeen bëgg kontaan xam ngeen ne yàlla mu ngeen xam ne yàlla mi ngi seen mi ngi seen wet moo tax mu ne wama jaalahu llaahu yàlla def ko illaa lu dul bushra mu nekk mbégte lakum ñeel leen beneen bi yàlla def na loolu wàcce na malaaka yi pour lan wal wali tatma'inna qulub bukum ngir seen xel mën a dal bihi ci loolu wali tatma inna bihi qulubukum wali wala tatma inna bihi qulubukum ay itmaanna alqalb it itminaanul qalb mooy xel mu dal mooy sukunuha mooy xel mi dal tranquille wa zihabul xawf tiitaange gi daal di dañ loolu mooy xel mu dal xel pour mu dal mooy ki xelam di dal tiitaange gi nekk ci xol bi mooy génn wal qalaq anha ak xol bi bu doo da doon rëngi-rëngi di tremble léeg-léeg ki tiit ci xolam naka lañ koy xàmmee da ngay dégg dënn bi di di tëf-tëf yi su dënn bi tëf-tëfee da ngay gis ci kanam gi lan changement changement yooyu da nga ko gis ci bët yi léeg-léeg sax nga gis ko ci gémmiñ gi ba pare mu doog a wàcc ci yaram bi léegi nag borom bi moom dane mbégte goo xam ne ak xel mu dal moo xam ne dama bëgg mu feeñ ci loolu comme na tiitaange gi di feeñee ak ragal gi na ko kontante gi remplacer wax dëgg yàlla kuy xeex ba ci yàgg ñu ne la yàlla wàcceel na la ay malaayika nga xool gis leen gis seen xàmmekaay war ngaa bég wala war ngaa war nga bég ba manifesté wu ba mbég feeñ ci yow yàlla nee na loolu laa namoon keroog moo tax ma wàcceel leen li mu malaayika yooyu ma leen màcceel sunu borom jalla wa ala mu ne wali tatma inna qulubukum bi ngir seen xol mën a dal ci loolu waaye maa ngi leen di yëgal lii lépp nag wa man nasru ndimbal amul illa min indillahi lu dul mu bàyyi koo ci yàlla wa man nasru illa min indillah ay jullit mënuñoo am ndimbal lu dul ci yàlla lay bàyyeekoo yàlla rek moo nu mën a dimbali jàngeen ci beneen aaya yàlla mu ne in tansurullah bu ngeen dimbalee yàlla yàlla dimbali leen au contraire est-ce que yàlla dafa soxla ndimbal pour nit dimbali ko dimbali yàlla mooy dimbali sa bopp yàlla nee na bu ma leen dimbalee kenn mënu leen a gañe wa man nasru illa min indillah na ngeen yëg ne ndimbal amul fenn même bu ngeen amoon ay arme même bu ngeen amoon ay nit bu ñëpp jógoon bu ngeen nekkoon benn te yàlla dimbaliwu leen du dem kon na ngeen yaakaar ndimbalal yàlla ut leen nit ñu doy former leen ut leen arme ut leen lépp waaye bu leen fàtte tàllal yàlla loxo ne ko sa ndimbal la ñuy xaar yàlla moomu al aziz mooy ki not ci nguuram alxakim mooy ki xereñ yàlla nguuram gi moo ci noot ba ndi ko ci neex rek mooy am borom bi ba mu sàkkee guddi sàkk bëccëg defar jant beeg weer wi defar ngelaw léegi lépp kenn ci ñun na ne yàlla ni mu programme àdduna neexuma bu guddee man dinaa fexe mu bëccëg bu bëccëgee wala mu ne dinaa fexe mu guddi bu jant bi fenkee dinaa ko nëbb dinaa ko soloo géej gi bu soobee yàlla dinaa yóbbu samay machine ci géej gi manq ko ba mu seey acca yàlla li mu programme noonu kese la loolu mooy al aziz mooy ki not ci nguuram nii mu def noonu la kenn mënu koo changer al hakim mooy ku xereñ nu mu def noonu la kenn mënta soppi xakim boobu xool ko ci sa bopp boo taxawee ci sa kanamu seetu pour nga xam xereñu yàlla xoolal sa bopp nga ne sama bët yi warul woon nekk fii de waaw vraiment fii fii fii dafa kawe war nekk ci sama dënd bi wala sama nopp yi vraiment warul woon nekk fii est-ce que mënoo nekk ci kaw bopp bi waaye mu nekk ci sama sama suufu tànk yi alxakim mooy koo xam ne lu mu def noonu la tey benn benn boroom xam-xam mun naa dugg fii léegi ci jàkka ji muy xool ne lii warul woon nekk fi bunt yi warul woon mel nii montre bi warul lu ne mun na wax te mën na am lay mun na am dëgg walla tabax boo dugg mun nga ko changer doomu aadama lépp lu mu liggéey mën nga kaa changé bu la neexee nga ñëw ne lii am na erreur sàngam wala nangam waaye yàlla nag kan mooy xool boppam mu ne lii fi mu nekk waru fi woon nekk bismillah yëkkati sa loxo loo gis ci sa bopp loo gis ci sa yaram nga ni lii warul woon nekk fii bopp bi fu mu waroon nekk kawar gi fu mu waroon nekk kawar bopp bi jëbi fu mu waroon nekk bët yi bakkan bi gémmiñ gi nopp yi loxo yi biir bi tànk yi lan nga gis fi mu nekk waru fa nekk waxal lan la est-ce que tànk mënoon naa nekk ci loxo loxo nekk fu tànk nekk ah waaw da ngay gis ne kon yàlla li mu def nii la mooy lii fii mu nekk lii fii mu nekk fii la war a nekk allahu akbar xoolal nopp tax ñu def ko ci kaw day dégg bët bakkan gémmiñ xoolal yooyu amul lu leen di muur noonu la la ko bàyyilee mais yeneen yëpp mën nga kaa sàng waaye kuy muur noppam chaque jour fu ngeen ko gis kuy muur bëtam chaque jour kuy muur bakkanam di muur gémmiñam mu nekk doo ma yàlla defal la ko foofu kawar gi fi mu nekk foofu rek la mun nekk bopp bi te lu nekk li yàlla def dafa am lu muy jëriñ foofu mu nekk wala yaakaar ngeen ne kawar jëriñul dara ci bopp ah bët ndox mi ci nekk jëriñu ci dara te xool leen ndoxu nopp ndoxu bët ndoxu bakkan ndoxu gémmiñ ñeenti ndox yi benn nuroowul te benn bu nekk mënul ñàkk fa mu nekk su fa amul foog nga uti ko léegi boo xëyoon léegi ndox mi ci bët am problème da ngay dem jëndi tuufaay paccal ko ci boo xëyoon léegi bakkan yi am problème nga dem uti tuufaay paccal ko ci wala bu amul tuufaay nga wut ment la ko ah gis nga yaa ngi ko ci yéem a def te bu ci nekk dafa am lu muy jëriñ foofu te bu fa amul rek am problème te benn bu ci nekk nuroowul ak moroomam wala ma nuroo nuroowul soo ko ñemee nuroowul ndox mi nekk ci bii dafa we- wexat bii lewet bii am xorom bee dang far benn nuroowul ak moroomam loolu mooy xakiim yàlla moo xereñ loo xool da ngay gis xikmatul yàlla ci loolu ba lu mu def kenn du ne lu tax mu def ko sunu borom ne subhanahu wa taala yàlla def na lii li yaqtaa ngir mu dagg at taraf yuridu li yaxluka ngir mu alak min jaysh adduwu taifa yàlla def na li li yaqtaa ngir mu alak tarafan benn mbooloo benn kuréel min allazina kafaru ci ñoñu yéeféer yi sunu boroom wàcce na malaaka yi ngir ñu nekk ndimbal ngir jullit ñi ngir bégal leen dalal seen xel waaye ñu nekk ñoo xam ne dañuy alak benn wàll ci wàllu yéeféer yi mu ne aw yàq bi taxum wala yuxzihim mu doyadil leen toroxal leen wa yazillahum mu tarxis loo leen kon ndeke loolu mooy sababu wàcce malaaka yi mooy benn mu nekk ndimbal pour jullit yi waaye dalal seen xel waaye alak lenn ci yéeféer yi toroxal leen tarxiis loo leen fa yanqalibu ñu dellu ñoom yéeféer yooyu xaa'ibiin di nekk ñu torox ci kanamu yàlla tabaraka wa taala yarji'u ñu delluwaat ilaa diyaarihim ci seen kër ya xaa'ibiina ñoo ngi perte ñoo ngi sooy ah lam yahrizu nasara duñu am ndimbal allazi amal lahum ndimbal boo xam ne moom la ñu yaakaaroon yaakaaroon na ne bu ñu génnee seeni jigéen génne seeni arme génne seeni góor seeni fas ak seen ngànnaay ak lépp bu ñëwee dañuy duma jullit ñi ndax jullit ñi dañoo dañoo néew te ñoom am na benn waay boo xamante ne yokkal na leen force ci ay góor ak ay waruwaay ak ngànnaay waaye ndeke borom bi tabaraka wa taala moom defal na julit yi xéewal wàcceel na leen limu malaayika ngir malaaka yi dalal seen xel bégloo leen waaye alagal leen seeni noon toroxal leen noon ya ba noon ya ñibbi seeni kër dellu ci gàcce keroog ba ñuy dellu delluwaat nañ ci gàcce gu bon ak bon bon bon keroog ca Badr ndeysaan bañ demee Hind dafa nekk këram mu ne jigéen ñi màkk bu kenn bu kenn jege jëkkëram na jigéen ñëpp bàyyi seeni jëkkër na jigéen ñëpp sol lu ñuul mu nekk ci biir néeg bi naan Hamza yaa rey sama pap yaa rey sama mag yaa rey sama rak su ma la reyul daggate la duma bëgg ci la woo wax si préparé ko ne ko jox ko mbuusu or ne ko boo fexee ba nga rey Hamza bi su Uhud dinaa la goreel dinaa la takkal jabar dinaa la takkal gànjar dinaa la takkal urus kon mbokk yi ci gàttal ci kàttanu yàlla lii moo doon sunu dars tey ñu ñaan borom bi tabaraka wa taala mu jéggal ñu njuumte yi defal ñu ci tawfiq assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu bu fekkee am na question incha allah